alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah sayidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi ahmad ibn muhammad ibn habibillah almaaruf inda almalai al ala bin abdilxadim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen massawu coono ci ñu jóge ci yeneeni barab yu bokkut ak fii di massawu coono ñu jóge ci biir dëkk bi ndax nekk ci wàccaayu màggal ci turu daayira bi nga xam ne moo boole mbooleem ñuy setoo ci sëriñ Mahmoudan yépp ci lañ leen di nuyoo di leen dalal jàmm ci barab bii nga xam ne benn barab la ci barab yi borom daarul moot yi nga xam ne jàng ak jàngale bokk na ci li ko sababoon ak sa njam jàng ak jàngale moomu nga xam ne nag bokk na ci li sababoon barab bi mu sos ko moo tax at mu nekk rek daayira bi di am ay xalaat ci fexe ba képp ku ñëw ci màggal gi yóbbaale ab bind boo xam ne ba déwén danga ci man di dolli lu baree baree bare bare yàgg nañu koo def di ci ànd ak ay kilifa sëriñ Ahmadu mii ñu ko fas yéene àndal tey njëkkoon na fee jaar ak ñun ci yeneeni waxtaan waaye balaa ñuy agsi ci sëriñ Ahmadu rek damay njëkk jiital sama mbokk sëriñ Mouhamadul Habib mu yëkkati ay kàddu ci turu mbooloo mi sant ñi nga xam ne ñoom lañu ñu séqaloon liggéey bi ca ba ñu ko tàmbalee ba fii ñu nekk ak fu ñu mën a nekk ak wet gu wet gu ñu mën a féete itam bu ma noppee ci sëriñ Modou sëriñ Ahmadou incha allah moom lañuy ñuy tàmbaleel waxtaan wi bu ci noppee sëriñ Ousmane dana fi jël kàddu ñu jox kàddu gi nag sëriñ bi ñu mu ñaan ba beneen yoon incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yi bu baax a baax di nuyu mbokki taalibe yi di di jiital ci nuyoo bi kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew. di leen sant bu baax a baax yi ci teewaay chaque année ñu koy ànd ak ñoom euh, ñëw fekkee ko ànd kook ñun ñoo ngi leen ciy sant bu baax a baax te di ci am mbégte lool euh, dañ ma jox kàddu nag ngir ma war a wax ci turu daayira bi muy daayiratu ahfaadi cheikh mahmudan mbàkke kosom daayira bi nag mi ngi sant mboolem mbokk yi di sant mbokki taalibe bii bu baax a baax ñoo ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo ko ànd te lépp day benn ñu nekk suñu yitte mooy liggéeyal sëriñ Mahmoudan boo ko defee kenn ku nekk xool wet nga mën a jàpp rek mu jàpp ca te gis ne li tax li ñu gën a poussé ci ñu def lii dañoo gis ne sëñ dafa mel ne boroom daaru ab ab ab liggéeyam moo nekkoon jàngal jàngale ndax sëriñ Tuubaa moo ko digal ne ko muy jàngale naa daytukal yowma bi ibrahimu allim fatan yanfaahu tafhimu ah, Cheikh Ibra Faati nekkoon ci loolu yi mu demee ba ay jamono yitte yi gën a bëri maggi ak maggi géeg yu ne demee mu samp doomam ñuy wax sëriñ Mahmoudan ngir mu wuutu ko ci daara ji ñun nag bokk na ci liggéey bi ñu bëggoon a taxawee mooy liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam loolu moo sabab bis bii ñuy def nii moo sabab mbooleem activité yi nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi koy def ngir ngir ngir ngir lu mel noonu di sant sëriñ Ahmadu mi nga xam ne moom lañ invité tey ngir mu war ñoo defal waxtaan wi te moom mu bokk ci mbir yi yàgg koo ànd ak ñun euh, depuis ci njëlbeen ga ba tey ji bu ñu fàttalikoo daaw bi fi sëriñ xalil di waxtaan moom mii la àndaloon waxtaan te njëkkewu ko ci at moom yi ñuy ñaan sunu borom mu dëgëral ko te kàttanal ko ba lii yéeneem ci tasaare xam-xam ak liggéeyal si Ahmadul Xadim mu am ci lu kawe jortam bi mbokk yi xalaatee waxtaan bi nag ba waxtaan ci ak moom ci la biñ ci waxtaanee ak moom ba juboo ci benn thème boo xam ne jàpp nañu ne ku ñëw ci barab bi dina la mat ab yóbbal dina la mat loo xam ne ab yóbbal lay doon boo jëlee ci màggal gi ba màggalub déwén bu ko yàlla dogalee incha allahu taala moo tax ñuy ñaan bokk yépp ñi fi nekk fii ci barab bi ak ñi nekk feneen ci biir dëkk bi ñu maase ci teewlu ko ndax xam ne njariñ képp lay doon insha allah li mu war a waxtaane nag mooy al adabul mardi ay teggin teggiin nag dafa yaatu waaye duñ ci sori dañ koy bàyyi rekk ca anam gëm ñu ci bëgg a jariñe ca wet googa ñu ko cay diglu di ñaan suñu borom defal ko tawféex te defal nu ak dégg nu nitam wajaal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa bërëb bi di sëriñ muxtaar moom cheikh mahmoudan mu cheikh ibrahima fati di sant yàlla bu baax bi mu nu mayee nu fekkewaat jataay bi waaye nu boolewaat nu itam ci jataay ni ko sëñ muhammad junje léegi bërëb bi ak jataay bi dama cee bokk ni ci ñépp bokke ñiy taxawal jataay bi itam ma bokk ci seen biir kon bu ñu ma féetalee ma war a joxe bind bi ñu fi joxe tey loolu sharaf la ci man waaye may ñaan sunu borom tabaraka wa taala ñoom lañ cay séentu yàlla na ko ci yàlla def ci daraje sëriñ bi di siyaar itam mbokk taalibe yépp ci bërëb bu sell bi nga xam ne moom la nit ñi gën a miine daaru koso daaru koso waaye muy dëkk boo xam ne sëriñ bu mag ci boppam moo joxe aw turam na ñaari nettali yoo xam ni yépp wér lañ mën a boole itam benn bi mooy li ma jële ci sëñ maam Cerno ne sëñ maam radiyallahu anhu mu baax ma moom moo daa li ak sëñ Cheikhouna Lo mu sëñ Mokhtar Binta ñu wax ne Cheikh Ahmad Wadul Xasan Ahmadul Xasan moom ku ñu xam la moo taalif téereb dalilu man raamat dalil fi wird cheikhina al muqaddamil moom la sëñ Tubaa njëkk a jox al wirdul maaxoos min allahi bi waasitati rasul Cheikh Ahmadul Hasan woowu nag moom yi nag dañoo wax ne dafa mas a tëdd guddi gént di siyaar borom daarul moxti fekk ko ci bërëb boo xam ne mi ngi tudd riyaadu saalixiin nee nañ bam mu ca tegee ab diir mu ñëw di siyaar borom daarul moxti fekk ko fii ci daaru koso nett ko gént ka ba mu ko nettalee ba daaneel rek borom Darou Mouhty génneel ko këyit woo xam ne mbindum sëriñ bi la mu tudde dëkk bi Riyadou Salihine waaye am na beneen nettali boo xam ne sëñ Maxtaar mi dégg naa ko ci moom mu jële ko ci sëñ Mët Jóob astu ma nga xam ne doomi ndey sëñ Mahmoudan la woon mu wax ne sëriñ bu mag bi ci boppam moo ko tuddee dëkk bi daarul mu niir joxoon ko borom daarul moxti waxoon ko ne ko adduna day ak lëndëm te liggéey rek moo ko mën a leeral ak fàggu lu lew ne ko àllaaxira gee itam ak lëndëm la goo xam ni jaamu yàlla képp moo ko mën a leeral moo tax nag ma tudd dëkk bi daarul mu niir bëgg nga boole fi ñaar yooyu jaamu yàlla ak liggéey ñaari tur yi nag benn la riyaadu saalixiin mooy daarul munir kon bërëb bi bërëb la boo xam ni sëriñ bi ci boppam moo joxe aw turam te ku xam ñaari tur yi ñu wax di nga gis ne bërëb bu defar net la bërëb bu liggéey la bërëb bu jaamu yàlla la bërëb bu defar doomu aadama la tam kon pàkk bi bu nu fi nekkee war fee waxtaane lu aju ci al adabul mardi loolu lu yàlla la ndax fii bari na ñu ñu xam ci ay kilifa ñoo xam ne fii lañ leen waajale muy riyaadu saalixiin di darul munir gi ginnaaw loolu itam waxtaan wi kon mi ngi jëm ci ni ko sëñ Mouhamad junje al adabul mardi dinaay misaal misaal mu leer ci aw yoonu murit yoon wi boo ko doon misaal ci jëmm jëmm jii nga séen boo ko doon misaal ci yoon wi jëmm jii mooy tolloog sariya bu tegu ci alquran ak sunna waaye xam nga ne doomu aadama jëmm jii nga séen rek taxul ñuy wax doomu aadama faw mu am ruux gu nekk ci biiram ruux googi nag bu doon ci yoon wi ci misaal moom yi mooy tolloog ay teggin teggin mooy ruux ak murit waaye sekkareb ak ak murit nag mooy bëgg sëriñ bi kon ñett yooyu benn mën ci ñàkk jëmm ji bu amul kenn du seen ruux gi ndax ruux ci jëmm rekk lay dëkk waaye jëmm itam bu ca ruux nekkul dee su ko jàppeeti jëmm ndax day faatu ruux gi bu génnee jëmm ji day mat sëkk nga gis loxo yi gis tànk yi gis bët yi gis lépp mu mat sëkk waaye du day faatu na dee na ndax ruux a ci nekkul kon ak murit mënta ñàkk jëmm ji nga xam ne mooy al sariya bu tegu ci alxuraan ak sunna waaye mënta jàkk ñàkk itam ak ruux roox gi nag mooy ay teggin teggin yooyu nag la ñu nar a waxtaane tey jii li nuy njëkk a xam mooy murit moom sëriñ bi dañu ko leeral lan mooy ak taalibe ak taalibe sëriñ Tuubaa ba mu wax al iraadatu dafa xam ne mooy ibaadatun an qasri iradati almuridi ala iradati alxaqi jalla wa azza duna liltifaati ila gayrihi min saa'iri al axyaar mooy sag bëgg nga seet ko ci bëggug suñu borom murid koo xam ne yàlla képp mooy yitteem idil koo xam ne yàlla képp mooy yitteem moom lay dàkk moom lay wut ngërëmam moom lay sàkku ci lépp jaamu yàlla yii muy defit dana ko def ngir ne ndigalul suñu borom la waaye du ko def ngir sàkku ci lenn nga ngir wut ci lenn ëllëg du jaamu yàlla ngir bëgg àjjana ëllëg wala ngir ragal sawara day jaamu yàlla ngir ne suñu borom ko ko digal lu ko suñu boroom fayee ëllëg nag mu sante ko yàlla yàlla mu murit foofu fii lay nekk mooy ña suñu borom waxoon ci al ci alxuraan ne yuriduuna wajhahu wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal asi yuriduuna wajhahu alquran bari na ay xeeti murit am na ñoo xam ni in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara alaaxira ñoo xam ne dañuy bëgg yàlla bëgg yonente bi waaye bëgg ëllëg nag àjjana ak lekk ya ak naan ya fa ne am na ñoo xam ne minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira am ñoo xam ne adduna lañ bëgg muridi adduna lañ am ñoo xam ne alaaxira leen tax a jóg bu mag bi nag lam woote mooy ñi nga xam ne yàlla képp mooy seen yitte mas naa yónni ku ñuy wax Abdullahi Jaw ni ko sëñ Basiiru nettalee ci mi neen baaxal xadim ca Daaru Salaam ne ko boo demee waxal dong yee ne leen koo ci xam ne adduna képp mooy yitteem na dem bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne alaxira képp mooy yitteem na dem bàyyil ma fi daara koo ci xam ne adduna ak alaxira mooy yitteem it mu dem bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne yàlla képp mooy yitteem nag mu toog kon murit mooy koo xam ni yàlla képp mooy doon yitteem wasfu muridi tarkuhu l iraada li wajhi man yafalu ma araada man man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu murid nag ginnaaw yàlla rekk mooy yitteem yàlla nag li koy maye sëriñ bi dana wax ne ay teggin la yàlla teggin moo koy maye jaamu yàlla yii ngay ngay ñuy def ajjana moo lay may àjjana moo lay may nga mën a tàbbi àjjana booy def ndigal yi bàyyi fa kullu man bi gayrihi raamal wusul li xadratillahi fa xumrun la nabil loolu la Sëñ Tuubaa képp koo xam ne bëgg nga ne damay dox ak dem ca sunu borom am yàlla sa digg sa borom la tax nga jege ko mu bëgg la nga bëgg ko mu jegeel la boppam may la la muy may gaaya li leen loolu boo ci bëggee àgg te ko ci teggin xamal ne yow sa xel neexut fa xumrun laa nabin yow woo te sam xel neexut te xamoo li xew kon moo tax teggin lu mat a xam a ngi noonu lu mat a sonnee ngi noonu lu mat a yittewoo ngi noonu te Sëñ Tuubaa mën nañ ne moo fees dell am mbindam moom lim ci wax ci ay ngëneel rek buñ buñ ko doon wax am na fu mu wax ne wal adabul mardiyu afdalu jamaal fadaani duunahu tamaathala dalaal dafa njëkk a wax xam-xam wax jëfe xam-xam teg ca nag ne teggin yoo xam ni teggin yu ñu gërëm nee na dinañ ñëw dinañ leeral ci kanam lan mooy teggin ak nan lañ koy dunde waaye dafa da teg ne teggin yu ñu gërëm mooy taar bi gën ci taar yi li li nit ki waaje amul lu ca ëpp solo teggin nit ki dana waaj ba jekk sol yére ya gën a am solo am xiima ci jamonoom ñu boole ko moom toroxal des na boole xam nit nit ak xam-xamam toroxal des na boole nit ak alalam toroxal waaye nit ak teggin moom kenn du ko boole te toroxal moo tax suñu jubaat daa wax ne teggin mooy loo xam ne dara du jag li fekk ëndu ca lu mu ànd rek loola jag lu mu ànduti loolu du jag sëñ bi àgg na ci wax ne wa adamul adabi qaidun ila bu'din min allahi di dil ila ñàkk teggin moo gaaw ci soril la suñ borom waaye teggin moo gaaw ci jege la ak suñ borom tabaraka wa foo gis borom yi teggin nanga nga xam ne nitu yàlla ngi noonu foo gis borom yi teggin muy sàmm teggin diggam ak boromam diggam ak mbindéef yi kookee na nga xam ne ku jege borom a ngi mi ngi noonu ku ñàkki teggin du jege borom mukk si Tuubaa àgg na ci wax ne diine ji buñ ko xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj yi teggin la wa nataqu bi annahu kaada yakun sulusayi diini fa fadluhu biin buñ xaajoon diina ñetti xaaj ñaari xaaj yi teggin la kon teggin lu rëy la sëñ bi àgg na ci wax ne awliyaw yi ngeen di dégg ak nañu mel ci seen borom nee na bu leen jàpp ne jaamu yàlla gu bari moo leen ci àggale wala julli gu bari wala koor gu bari déedéet sàmm teggin moo leen di àggale ca ca ca wilaaya googee ñu àgg wax na ne wa saxa ann al awliya al waasiliin maa wasaluu ila ilahi alaalamin bi kathrati al acmaali kalsalaati wa xajji bayt illahi wa zakaati bal wasaluu ilayhi bi ricaaya li jumlati al aadaabi bil julli gu bari lu am solo la lu baax la lu la may cër yu kawe la ca suñ borom waaye nee na awliya moom lañ am ca seen borom la leen ko may mooy sàmm tegin seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg mbindeef kon teggin dañuy gis ne lu am solo la lu rëy la lu diis la rawatina ab murit nag ndax mooy ruuxu ak murit bu génnee ci yow murit gu dee nga yor jëmm joo xam ni moom moom dundut dundutul moom nga yor te ku ne seetlu na jamono ji maanaam nit ñu baree bari sama sama classe gi da ngay bëgg nekk murit ba pare bëgg nag sa lépp ñàkk ñàkki teggin lay doon ak wax ju ñagas ak wax ju ñaaw xas nit ñi kenn du baax ci sa kanam bëgg ne murit nga xam nga loolu maanaam murit du lu yomb murit bu ñu demee ba ba muy lu yomb nga xam ne ku jug doon murit rek jafe-jafe na suñ bay jaxat dafa wax ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit ne murit dëgg day dee te déegul asal li dee metti metti jotul ak murit maanaam ginnaaw mi ngi lëkkale ak murit ak ak dee xam nga ne murit kon du lu yomb ne gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba dundam nga far mu réer ak murit kon ak murit lu mat yitti wala murit nag dëgg dëgg murit mooy ay teggin daanaka sëñ bu mag bi am na fu mu wax ne at tasawufu kulluhu adabun fa man zaadaka fi adabi faqad zaadaka fi tasawufi leen tasawuf lépp teggin la ku la ay teggin moo la tasawuf te tasawuf si abdul xudus mu baax ma da ko daa firee da ko daa firee ak mu daa wax te daa ko wax lu bare bare mooy laysa tasawufa lubsu suufi tarqauhu wala bukaauka id ganna almugannuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala tiraabun ka an qad sirta majnuuna bu ko masaa di firi day wax ne ak taalibe du baj baji du yëngal ay bopp du sëqal kii du sol yére ay ay sagar neen ak taalibe mooy an tatbaa al xaqa wal quraan wa diina Cheikh bu ko daa firi ak taalibe foofu tasawuf te ak taalibe la koy firee kon fii maras naa dégg ne li sëñ bi wax fii mooy ak taalibe mooy ay teggin ku la ëpp teggin rek moo la ëpp taalibe te sëñ sëñ bi ni mu waxee ne teggin mooy maye yàlla noonu la waxee itam ne diine ji itam bala nga cee jariñu topp ndigal bàyyi tere bala nga ko bala nga cee jariñu dëgg-dëgg dangaa ami teggin is kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa koo xam ni bëgg naa dund diine dëgg-dëgg te boolewu ci ay teggin nee na kooku du jariñu mukk te la muy wut du ko am moo tax suñ suñ mag bi daa ko gàttal ci wax ne wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru mactaza bihi du izi li annahu munawiru ljanaani kama yuqarribu ila ljinaani nee na teggin mooy koom mi gën ci koom yi boo ko xasee am ñàkkoo dara boo ko ñàkkee nag xamal ne amoo tus ak loo mën a am ci kaw suuf nee na teraanga itam ji ci gën mooy ay teggin soo ko amee am nga teraanga ji gën ci teraanga yi waaye soo ko amul moom ay teggin amuloo dara nee na teggin itam mooy leeru xol ku ko am suñ borom dana sotti ci sa xol ak leer waaye ku ko amul nag mënoo am leer mukk doy na rek ci nga xam njariñul teggin mooy loo xam ni soo ko làmboo di gën di jege yàlla di gën di jege àjjana soo ko ñàkkee di gën di sori yàlla di gën di sori sawara di gën di jege sawara loolee lu mat a yittewoo la sëriñ bi yëmut ci loolu mas naa wax ne adduna ñaar a fi am solo muy barke ak teggin ne nag barke nag bala nga ca àgg danga jaar ci yoonu teggin ne barke bu doonum néeg bunt ba mooy ay teggin ne barke saa yu duggee ci lu tuuti da koy baril ba ñépp gis bariwaay ba waaye mbir lu mu bari bari su ca barke génnee mu néew ba ñépp gis ne lii amul solo ne teggi nit loolu la mel saa yu duggee ci mbir lum ñaaw ñaaw mbir moomee da koy rafetal bu duggee ci askan da koy rafetal nit ki mën naa manqué lu ne waaye bu amee teggin rek day mëdd day suturaal wetam yépp ba kenn du ko xam ci moom wax naa léegi ne nit des na ko booleek lu ne toroxal ba mu des ay teggin des na ko booleeg xam-xam toroxal des na ko booleeg alal toroxal waaye ay teggin moom kenn du ko booleek nit di toroxal moo tax sëñ sëñ mag bi daa wax ne teggin bu duggee ci mbir lu mbir ma ñaaw ñaaw da koy rafetal mbirit lu lu mu rafet rafet buñ ca noccee ay teggin bu buñ ko ca génnee day dal di ñaaw kon teggin gis ngeen ne dayo bi ak fi mu toll foofu itam lañuy dugge ci gaañu baax ñi jege yàlla mel na yonente yi gis nga gis nañ ne yonente yi la leen may lañu am ci seen borom mooy ay teggin bu ñëwoon ci alquraanul karim dañuy gis ne yonente yi dañ daa jëfandikoo teggin seen digganteek seen borom di ko jëfandikoo seen diggante ak seen moroom ci misaal yu gàtt rek sayyiduna isa alayhi salaam gis nañ ci alquranul karim sunu borom wax ne ëllëg yowmal xiyaam dana ko taxawal laaj ko ab laaj a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilahayni xam nga chrétien yi da cee am ñu gëm ne sayyiduna isa doom yàlla wal iyaasu billah sunu borom nag ne ëllëg dana ko taxawal laaj ko laaj boobu ne ko ndax yaa wax ñii la topp ne leen maak sama ndey ji ay yàlla lañ xamu nga foofu Seydina Isa moom mën na wax naa wax ne waxuma loolu waaye ay teggit mayiwul loolu kilifa ku toll ne suñu borom laaj la bu taxaw rek ne ko waxuma wala defuma nangam loolu kenn ko wax sa kilifa moo tax dafa wax ne in kuntu qultuhu faqad alimtahu loolu de bu fekkee waxoon naa ko de xam nga ndax yow dara ump la taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsika innaka anta allaamul xuyub gisal wax jooju rek ku mel ne tey sayiduna ibrahima alayhi salaam bi muy wax yi ko suñu borom defal wax ne suñu borom moo ma sàkk moo may gindi moom may jox may lekk di ma jox may naan lépp moo ma koy defal waaye bi ma àggee ci ci war a wax ne suñu borom moo ma teg tawat ji baat boobu maanaam ay teggi ne muyu ko mu wax ne suñu borom moo ma teg tawat ji dafa wax ne man bu ma tawee tey itam moo may jox saafara moo may wér alladi xalaqani fa huwa yahdini walladi huwa yutimuni wa yasqini waaye dajaa def wa ida maridtu fa huwa yashfini maanaam teggin gis nga gis nga ni mu mel sayidna Musa alayhi salaam ba nga xamee ne jóge na Égypte dem ci Madiyan dox dox bu sori sonn lool te génne ko dëkk ba mu nekk ci fitna ak coono ak ñàkk gis nga bi muy ñaan suñu borom rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir mënoon na ne ko jox ma nangam nangam nangam li ni yi laajee nga xam ne tey moom moom ñaan booy ñaan moom may may milliard nangam nangam benn bu xorom dama dégg mu wax ne dafa den nag kuy ñaan ci bërëb bu borom Daaru Muxti bi nee na dégg waa ji tudd ceeb bu bari <laughs> déw bu bari xam nga suñu borom nii Seydina Muusaa moom dafa gaaral boom wax ko ne ko rab bi inni li ma anzalta ilayya min xayrin faqir ànd ak li nga ma defal lépp teewul maa ngi wéy di aajawoo jëm ci yow daa gaaral boobu loolu mooy ñaan ñaanuk ak teggin gis nga xudar ki ñuy wax xadir ñeneen ñi di ko xudar su ba mu ànd ak Seydina Muusa ñu dem ci géej ga dugg ci bato mu jël sémmiñam di di di yàq bato bi maanaam gor bato bi ginnaaw ba ñu fekk miir buy waaj a daanu ñu yëkkati ko ngir ne dafa am ay jirim xisa bi xëy na gudd na duñ duñ ci waaye li ma bëgg wax mooy gis nga ba muy wax dafa wax ne ba muy wax yàq bato bi da ko askan ci boom fa aratu ana ki ginnaaw sikk ngi ci rek mu askan ko ci boom waaye xale yi nga xam ne dañ leen a dencal seen alal joojee bañ man caa jariñu xam nga lu baax la mu askan ci suñu borom mu askan ko ci sunu borom wax ne fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma rahmatan min rabbika kon yonent yi ak gaañu baax ñépp buñ ko toppoon du jeex gis nañ jinne yi sax bi naa muhammad bi nga xamee ne suñu borom yónni na sayidna muhammad sallallahu alayhi wa te ñu gis asamaan si ak waajtaay wi ak yi nga xam ne moo doon xew bañ koy nettali dañuy wax ne laa nadri asharru nurida bi man fi lardi am araada bihim rabbuhum rashadan asharru nurida xam nga ay wi askanuñ ko suñu boroom waaye gis nga li nga xam ne lu baax la mooy mooy njub gi gis nga suñu borom la ko lañ ko lañ ko askan asharru nurida bi moom fi lardi amaraada bihim rabbuhum rasadan maanaam teggin da gis ne ñoom gis nga sayyidna aadama alayhi salaam bi nga xamee ne lekk na ca garab googee ba suñ boroom génne ko àjjana wàcce ko ci suuf si xam nga mënoon naa wax suñu borom ne ko loolu lépp yaa ko dogal teg ma ko waaye gis nga dafa wax ne rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna na min alxaasirina maa tooñ saa bopp maa juum maa def lu ma wut def kon maa ngi sàkku sa yërmande ndax loolu mooy mantiqul ubudiya kon ay teggin kula ci raw rek moo la gën a jege yàlla moo la raw fa yàlla seydina ayuba alayhi salaam gis nañ li ko suñ borom nattoo natt yoo xam ni xajul ci doomu aadama mu muñ ko muñ gu rafet waaye gis nañ ba muy ñaan ngir su suñu borom teggil ko ko dafa wax ne rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimina nekk fa di wax ne li nga ma teg ak nangam nangam dafa wax ne man dey jafe-jafe dal na ma lor jot na ma te yow yaay ki ëpp yërmaande daa gaaral boppam suñu borom tabaraka wa taala suñu borom daal di koo koy tegge sayidna yuusufa alayhi salaam gis nañ ay mbokkam ñoo ko jël tàbbal ci teen jaay ko boole ci mu nekk ci njaam diir bu yàgg ba yàlla defal ko taw feex mu génn ca ginnaaw ba mu dugg mu jaar ci ñu dugal ko kaso yu bari xew fi waaye bi mu demee ba mbokk yooyee dajewaat ak moom bi muy wax dafa jël teen bañ ko tàbbaloon ndax mbokk yaa ngi taxaw hada tawilu ruyaaya min qablu qad jaalaha rabbi xaqan wa qad axsana bi is axrajani min assijni min assijni yaa ne kaso ba la tudd bàyyi teen ba ndax teen ba mbokk yaa ko fa dugaloon te ñi ngi taxaw bëggul ñu am kersa kon alxuraan buñ ci mënoon nañ ci yemale yemale yemale tem bi ñu gis teggin yi nga xam ne moom la ambiyaaw yi ak mursaluuna yi ak gaañu baax ñi yàgg am gis nañ sayyidina muhammad moom alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy sangub ñi ami teggin suñu borom ci boobu moo nett li ne ba mu ko rañaanee ci pays yu kawe yooyu nga xam ne keneen ku fa demoon man nga xoole fu ne nga jëm faa xool waaye suñu borom dafa wax ne ma basaru wa ma taxa maanaam moom lañ ko xooloo rekk la xool suñ boroom rek la am soxla xoolul leneen foofu loolu mooy dayoom ay teggin bu ñëwee ci teggin yi dox diggante suñu diggante yónente yi masalan gis nañ walla yónente yi seen bopp rek teggin yi dox seen diggante ak seen seeni mbokk ak doomu aadama yi leen wër dañ ko daa sàmm xam nit ki léeg lu mu baax baax lu mu nekk nekk wëlliyu wala mu jege jege jege loolu yàlla itam téewul li ko war moom warut a gis sax lool noonu waaye li ko war ci digg ak mbindeef yi da ko war a da ko war a sàmm yonente yi gis nañ suñu borom moo nett li ne ñoom seeni waajur dawuñu leen sàllawlu sayidna yuusufa alayhi salaam day wax ne yaa abati inni raaytu ahada asara yaa abati yow sama baay sayidna ibrahima alayhi salaam moom loolu wax yaa abati laa taabudu sheytaan sayidna ismail noonu yaa abati ifal ma tuumar sa tajiduni insha allahu min assaabirina sayidna muhammad wax na ne rabbi an azura qabra ummi dama sàkku ndigal ci sunu borom mu may ma ma siyaare sama xabru sama waajur wu jigéen sama ndey sëñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wax nañ ne mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko jege kenn ku ne la nga doon ci moom noonu la ko daa waxe sama nijaay sama baay sama nangam noonu la ko daa waxee yooyu yëpp dawut salalu kenn te ñoom ñëpp dañoo dañoo maase jébbal ko seen bopp moom muy seenu sëriñ kon teggin noonu yi la deme di loo xam dañ ko war a sàmm suñ digg ak dégg nga sunuy kilifa loolu mën nañ ko jël misaal ci saxaaba yi nañ defoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi sunu boroom ci boppam moo leen jàngal nan la ñuy dundeeg yonente bi ci ay teggin moo leen wax ne laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen yëkkati bu leen toog fi moom di wax seen kàddu gën a kawe kàddoom maanaam teggin yooyu saxaaba yi doon dund ak yonente bi mooy yi murit yi doon dund ak sëñ murid yi ñooy ñi gën a nekk ci sunna murid yi nag laa wax ñooy ñi gën a nekk ci sunna lii ñu ne mooy la saxaaba yi nekkoon sunu borom moo digal saxaaba yi ne leen laa tajcalu duaa rasuli baynakum ka duaai baadikum baadan bu leen ko woo ni ngeen wooye seen moroom bu ko kenn woo di ko sàllalu moom suñu borom ci moom wuu benn yoon moom yonente tamit sàllalu ko ci alxuraan yaa ayuha nabi yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almudassir la koy wax wax saxaaba itam ne leen bu leen yëkkati seen kàddu muy gën a kawe kàddoom waaye wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baax dina an tahbata amalukum wa antum la tashuruna bu ngeen nekkee ci wetam di wax ca kaw na ngeen xam ne seen jëf yépp a yàqu du ngeen am bàkkaar de bàkkaar du du ci yem waaye seeni jëf ci boppam li ngeen mas a jëf ci kaw suuf lépp ay yàqu xoolal sàmm teggin ni mu toll inna alladina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaayika alladina imtaxana allahu qulubahum li taqwa ñi am taqwa dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne buñ toogee fi yonente bi dañuy sàmm teggin wàcce seen kàddu damm seenu gis ci saxiixu buxaari la ñu fekk urwatu bnu masud saqafi net li ne li ma gis saxaaba yi di ko def ak yonent bi mësumaa gis ñu di ko màggale nit nee na bu xaaxtandi ko laa yeta naxamu nu tan maanaam bu xaaxtandi ko ci moom neen du àgg suuf dañ koy alawtiku raay ko seen seen xar kanam ak seen yaram nee na bu bu jàppee itam kaadu yaqtatiluuna ala waduihi dañuy xaw a rayante ngir bëgg a naan njàppiiti yonent bi moo maanaam bi muy jàpp ndox moomu di ci doon rote fañ ko doon taataan la ñuy bëgg naan ñoom te duñ ko xool jàkk nee na mukk wax nañ ne bu ñu masaa toog fi moom ñoom saxaaba yi day mel ne ka anna ala ruusihi mu tayru day mel ne picc moo tong ci ci seeni mbagg te bëgguñu mu naaw dañ naa dégg moo tax saxaaba yi foofu di nekkoon gis nañ sayyidina Abu Bakar as-Siddiq bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci tawat ji te wax ne na Abu Bakar jiite sayyidina Abu Bakar dafa nekk di jiite waaye nes tuut mu dégg ab yëngu ci jàkka ji xam ne yonente bi daa génn bi yonente bi génnee fekk boo xam nga saxaaba yi ñoom yonente bi moo seen dund te wéra dina ñëpp am na leen naqare bi ñuy julli ci ginnaaw Seydina Abu Bakar as Siddiq ñu jekkee rek mu gis jàkka ji yëpp yëngu mu xam ne yonente bi moo jug moo génn bëgg ñëw ci bokk bokk ci julli gi waaye bi mu ñëwee moom yonente bi ba jege Seydina Abu Bakar da ko puus ne ko àggaleel Seydina Abu Bakar bëgg a yonent bi puus ko ne ko àggaleel Seydina Abubakar daa arrière ne ko xalaatuma ko maanaam maa kaana libni abi quxaafata an yataqaddama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man doomi abu quxaafata képp la du ma jiitu mukk ci kanam rasulillahi sallallahu alayhi wa di ko jiite xalaatuma ko daa arrière yonent bi jiite mujj nga xam ne waa jàkka ñoom Abubakar la ñuy gis muy julli di roy ci yonent bi yonent bi maanaam di julli Abubakar di jot li waa jàkk ji roy ci Seydina Abubakar ndax moom yonte bi ci muy roy ci yonte bi maanaam yonte bi Seydina lañ gis ñuy roy ci moom moom muy roy ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gis na Seydina keroog ca sulxul Xudaybiya ba nga xamee ne bind na diggante accord bi ñu signante diggante waa Makka mu bind Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg signante ak waa Makka ka ñëwoon mooy Suhayl yaakaar naa la da ko wax ne ko maanaam bu ñu xamoon ne yow rasulullahi nga yónnente bi yàlla nga duñ fi nekk di si ñeente yow loolu dañ koo gëmagul moo tax moo tax rasulullahi ji da nga koy dindi Seydina Abubakar Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wax Seydina Ali ne ko dindi rasulullahi ji Seydina Ali ne ko xalaatuma ko rasulullahi du ma ko far mukk sallallahu alayhi wa sallam wow wow tur ke du ma ko far nga xam ne Seydina Muhammad ci moom moo faral boppam tur wa foofu lañuy la ñuy dégg ne teggin moo jiitu def ndigal teggin léeg mooy jiitu def ndigal man sàmm teggin moo jiitu lépp kon teggin day feeñ ci lépp day feeñ sa diggante say waajur di feeñ sa digganteek boroom xam-xam di feeñ sa diggante ak say moroom di di feeñ sa digganteek ak même ñi nga xamul ay jàmbur war a feeñ diggante sax góor ak jigéen lu ci ne am na teggin yu ñu ci digle ak gan am na teggin yu ñu ci digle maanaam bu dul doomu aadama sax léeg-léeg mu am axwaal yoo xam ni dafa am ay teggin lu mel ne xéewlu lekk dafa am ay teggin suñu borom yonente bi waxoon na sayidna abdullah ibn abbas ne ko yaa gulaamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma fi mimma fi mimma yalika wa bi yaminika wa kul mimma ko booy lekk dangay ngay njëkk a wax bismillah te nga lekk sa ndeyjoor te nga yem ci sa kanam bul tàmm rek dem ci digg digg bool loolu ci teggin yi la lu mel ne naan am nay teggin mag ñi dawuñu naan masalan di taxaw dañuy toog wax bismillah guux bañ a gënnax li ak ni ñu ko jàngal teggin yu bare bari la am war ci dara am nay teggin ay ñaan yu ñuy def fi ne dugg ci wan ak am nay teggin génn ci wanag am na teggin ñàkk a sàmm teggin yooyu gis nga gis nga léegi xam nga yonent waxoon na ne jinne yi ak seytaane yi ci wanag yi lañuy dëkk moo tax ñu bëgg boo ciy dugg am na ñaan yooyu wax booy génn am na ñaan yooyu wax boo ca nekkee wuroo wax ndax malayka yi ñoom duñ dugg ci bërëb yooyu te boo waxee faw ñu fekk si la fa war a bind li nga li li ngay wax nga nga war nga waroo leen faa dugal kon loolu lépp na kenn sàmmatu ko moo tax gis nga jamono ji lu nuy xew wére di xel yeeg tëlbët lu lu lu ne mooy xew léegi ndax dañoo samatul teggin ci genn anam kon yii nii yu mat a sàmm la waxtaan ci boom rek wax rek dafa am ay teggin jàng alxuraan am nay teggin lépp dafa am ay teggin mer rek boog bu ko nit ki defee am na teggin yi ci yónte bi jàngale mooy bu la fekkee nga taxaw nga toog bu la fekkee nga toog nga tëdd bu la fekkee ngay wax nga noppi te wax auzu billahi mina sheytaan rajim ndax yónte bi nee na mer ci seytaane la lay bàyyi ko te seytaane léppam sawara la te sa war a koy fay yooyu yëpp yónte bi wax na ko bu dee sëy ak jaxasoo góor jigéen yooyu yëpp am nay teggin ànd góor ak jigéen ci sëy yooyu yëpp am nay teggin yuñ ci jàngale ba ci ku tawat am nay teggin ci nan lañ koy siyaare waroo faa yàgg waroo nekk di wax wax ju bari ak yu baree bari yoo xam ni am na ay téere yi boppam yoo xam ne loolu rek lañuy jàngale kon loolu lépp mat naa xam waaw mbokk yi dañoo wax ne jëm ci mujjug jataay bi nu fàttaloo gi Cheikh Abdourahmane Mbacké sunu sëriñ bu baax boobee nga xam ne moom lii nu doon wax royuwaay la ci Cheikh Abdourahman jëmm ju ñu yàlla sotta la ngi noonu maanaam ab yar moom ak i teggin ci moom la yem mas na ma yendoog moom benn bërëb am miraas booba seetlu naa suba ci huit heures booba lan xëy si ba minuit waaye ni mu tooge ni mel ni kuy julli noonu yi mu tooge yënguwut lu may ne day jug rek julli ji del ci waat bu ñëwee toog noonu mel ni kuy julli noonu yi mu tooge rek nga xam ne nun ñi da ngay seetlu dangay ngay wëlbatiku fu ne waaye ni mu yare jëmmam ji jëmm ji ni mu ko yare wax dëgg yàlla mosuñu ko moo tax kooku royuwaay la ci mboolem li ñu doon wax ci teggin tegginam ci wax wax maanaam genn kàddu gu ñagas mosuma koo dégg ci Abdourahmane yaakaaruma ne kenn mos la koo dégg ci moom loo xam jëpp aw yiw la digle lu baax la ak tere lu bon ak tudd yàlla jëfam itam noonu la mel jëfam lépp lu rafet la ab jëflanteem it noonu la rafete mësuta nongul lenn lu ñaaw mësu koo jéem a xam mësuta ko mësu ko fekkee itam kon li ñu doon wax lépp jëmm jooju moo mooy ki ko jëmmal ci ak dundam yal na ko yàlla fayal